إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوخينا إليك هذا القرآن ۖ إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عصر كوكب إني رأيت أحد عصر كوكبا والصمت والقمر رأيتهم لي شاجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنصان أدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi gannaaw bu nu sante yàlla julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi dellu santar baax sunuy ñaari waajur nuyu képp koo xam ne téléspectateur nga di ñu bàyyi xel ci ëttu Maodo TV foo mun a ne ci gox yu fasantikoo yi ñu ngi lay nuyu di la ziar te naan leen déwénati leen baal leen ñu àq baal nañu leen di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yal na nu yàlla boole baal bi jaahi nabil Mustafa alayhi salaatu wasalaam ñu nekk ci weer wu tedd ci weer woo xam ne weeru weer woo xam ne weeru bonus la ni ko borom xam-xam di waxee Ëttu Maodo TV comme ni mu koy defee saa su ne dugg ci gox yi dugg ci réew mi fépp foo xam ne borom xam-xam mu nga fa mu dem seq ak yow waxtaan macha allah tey ñu nekk fii ci Aynoumane li ñu fi fekk li ñu fi dajale nag mooy ki nga xam ne mooy oustaz Omar Diagne mi nga xamne kenn dotu ko présenter ci rawati rawatina ci département bi rawati na rawatina sax ci adina yëpp ndax ñëpp xam nañ ko machallah allah ci oyofam ak ci bëri xam-xamam te nak ëttu mawdo am benn concept bo xamne dañ ko andi ci wéru koor gi ñu duppé ko ndogu avec manam bép kilifa mo xam ci kilifa diiné la wala kilifa aada wala kilifa bu mënta doon ci domaine ba nga nek ëttu mawdo daf lay fekk fa nga né sék ak yow waxtaan xol naka ngay dundé koor gi ak itam sék ak yow rek ci waxtaan inshallah tey nag ñu nekk fii ci Aynoumane ëttu Maodo yëpp ànd ak équipe bu bu bu mag macha allah fekk si ki nga xam ne mooy oustaz Omar Dieng xam naa moom la ñuy dugal jox ko kàddu gi mu nuyoog suñu bokki téléspectateurs yi fu ñu mën a ne incha allah su noppee rek ñu seq ak moom waxtaan ci lu gàtt rek oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullah yaa ngi ci ëttu Maodo TV bismillah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Serigne Souleymane ñu ngi lay ziar di la ndokkeel. di ziar mbokk yu tedd yu baax yi nga xam ni ñi ngi ànd ak yow ci liggéey bu tedd bi ci ëtt mam Cheikh Seydi al haji malik radiyallahu taala anhu wa arda wa bi amin di ñaanal kilifa rajo bi di ñaanal kilifa kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk télé bi di leen ci ñaanal yàlla may leen lu kawe seen jort ba lépp lu ñu yéene ci kër gi yàlla na yàlla may leen ko ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu itam képp ku leen di jàppale ci liggéey bi ak képp ku leen di safoo ñi ngi ñaan ci barke weeru koor yal yàlla yëkkati rajo bi te kawel ko Souleymane. Eh, amin allahuma amin oustaz Oumar Diagne yal na yàlla eh, nangu ñaan yëpp eh, fi ñu duggee yow ci waxtaan mooy soo ñu doon wax rek oustaz Oumar Diagne mooy kan ci lu gàtt lan nga nuy wax. waaw jërëjëf sëñ Souleymane oustaz Oumar moom ñu ne baatu oustaz rek dafa am lu muy tekki mooy jàngale kat bu ñu tuddee kat am na fu mu jaar mooy am na fu mu jàngee euh, bu ñu nee jàng nag maanaam doomu aadama bi ay bërëb la jaar pour jànge fa na ku tudd daara dinga jaar daara raxas génn laxasaat dem feneen génn laxasaat dem feneen waaye ñun yàlla def na itam ñun yooyu yëpp yàlla daf ñu ci musal ñun ñi ngi jàngee ci suñu ëtt baay yeroo suñu ëtt baay màggee suñu ëtt baay te génnuñu fen te jàngewuñu fenn sunu baay nekk jàngalekat di oustaz Abdallahi Siis ay doomam yëpp ay jàngalekat lanu moom da doon wax ni doomam ku ci génn liggéey beneen métier yàlla na barke waaye dërëm boo am soxlawu ci dërëm waaye nee na fekk yaa ngi ci alquran boo ko mayee dërëm moo ko gënal milliard boo ko mayee fa tabarakallah moo tax ay doomam ay taawam ba ci ay caatam ñu ñëpp ay jàngalekat lanu fa tabarakallahu yàlla def na ci daaram lañ laxasee ci lañ jàngee fa tabarakallah ci lañ màggee ah, di sunu mag oustaz Biram Siis oustaz Ousseynou Siis nga xam ne ñooy mag ci daara ji fa tabarakallah ñu demee ba seen temps ak seen jot mayetu leen dara ci lañ ñu daan yebal ñu dem ci sunu baay oustaz Lum ñu dem di jël darsu di ñëw ci daara ji waaye terewul ci daara ji lañ nekk génnuñu dem fenn fanaanewuñu benn daara pour wuti xam-xam génnuñu dem ci beneen daara mais yitte góor gi moo nekkoon ku mu am rek yàlla na nekk boroom xam-xam loolu la doon ñaan te itam loolu itam am nañ ci yaakaar ni incha allah yàlla dina ko may Serigne Souleymane. Euh, jërëjëf euh, Oustaz Oumar Diène ci ni nga ñu tënkalee sa bopp rek euh, te nga xam ne xamoon nañu la dolleeku ci rek macha allah Oustaz fi ñëw rek mooy ñu fekk la fii ci ay numaan nga nekk fi ak say dëkkandoo ak ñëpp dëkkin bi naka la demee. jërëjëf sëñ Souleymane ku tudd ay numaan di nga xam ne dëkk la woo xam ni am na fu tur wi jóge tur wi nag tur wu suulu la woon ay tool la woon yoo xam ne ki ko moom bokk ci njabootu maam alxaaji Moussa 2005 bi fi Serigne Mansour ñëwee moo sulli tur boobu tur ay numaan mi ngi jóge ci làmmiñu Serigne Mansour borom daara ji moo ko sulliwaat sulliwaat itam tur boobu fa tabaarakallah waaye ñi ñu dëkkal ay numaan dëkk nañ lu toll ak ñaar fukki at ak ñeent bis ni ki tey ñaar fukki at ak ñeent ñun bi ñuy sanc Aynoumane fekk fii ay tool la woon booba fi garage Aynoumane nekk ak fi kër gi nekk kër gi fi mu nekk musul tuxu bi lotissement ñëwee fii la ko bàyyee waaye boo mësoon àgg fi garage bi nekk ay konkorong la ba mu wër dem da ngay wax dem naa ba ci digg àll bi boobu lu ko jéggi fii ba dem kër gu mag fi tax ñuy wax falox lépp ay tool la woon ci ay tool ngay jaar toolu gerte lakki màngoo yooyu ci ngay jaar waaye tabaarakallah yàlla boole ñu ay dëkkandoo yu baax dañoo ñëw ñu uuf daara ji jël taalibe yi nekk seen dayu daara di tibbal xale yi di leen rootal tabarakallah mel na ni suñu yaay mbeen mii nga xam ni moom moo moom moo jëloon engagement ndox mu daara ji di naan moo koy root fa tabarakallahu taan mbeen mi nga xam ni borom këram Serigne Babacar Dieye ñoom itam wax dëgg yàlla ñu bàyyi xel daara ji lañ rawatina mag ñi nga xam ne ñoo séq koñ bi ñoom Arouna Niang boobu jamono ñoom Mbaye Sène ñoom pasall tabarakallah sama goro gaañu na moom moo nekkoon bàyyu daara ji yor daara ji tabarakallahu lépp daara ji lépp fa daan jógee añu daara jeeg fa tabarakallah ak mboolem dëkkandoo yi ñu yàlla boole woon ñoom bay waali juuf fa tabarakallahu xam nga boobu dëkk bi ñun ñi nekkoon ci ruq bi juróom-ñaari kër la ñu woon booba juróom-ñaari kër yi ku pare añ da ngay woo sa morom bu tabaski jotee korite jote ñun ñëppay bokk benn añ léegi loolu ba léegi mooy sax fii ci ay numaan li fi mag ñoo ñu bàyyi woon ba léegi tabaski ñun ay bokk añ kenn du dugg sa kër añee fa bool yëpp dañ koy indi ci penc mi ñu añandoo ci kër ñi ñun ñëpp ñu añandoo ci penc mi buñ paree dénkante ay kàddu def ñaan yeeweeku jigéen ñi tam kenn jigéen ñi kenn du añee sa kër ñooy daje ñu añ buñ paree ñoom it ñu def ñaan dénkante ñibbi fa tabarakallah kon yaakaar naa ay numaan dëkk nañ fi dëkk bu mucc ay fa tabarakallah amuñ ci xaar yàlla kenn ku tudd daara nag wax taalibe ku tudd taalibe wax wax ni ni mu sobee ni mën a tooñee ni mën a yàqee waaye kenn ñëwul ci kër gi di àkkisi boobu ba léegi ñaar fukki at ñeent tey kon nag alhamdulilah Souleymane kàddu yoo lañ ci mën a wax mm-hmm. jërëjëf oustaz xam naa ne boros nga sama laaj bi ma la bëgg a laaj sax mooy sa diggante ak xale yi ndax itam ñun euh, miin nañ la miin nañ la lu baree baree bari rawatina jonjo bi ñuy jonjoo ci daayira yi ñu gis xale yi sa diggante ak ñoom niñ la yabee euh, macha allah dundin boobu noonu lan moo koy maye ak nag lan mooy sa diggante xale yi. jërëjëf Souleymane xale yi samay rakk lañ dafa am kàddu bu ma seen baay wax ndax seen baay moo ma yar maag samay rakk yaay lañ bokk. góor gi mooy seen papa waaye moo ma yar moo ma jàngal moo ma defal lépp loo xam ni nit dina ko defal doomam tabaarakallah daf ma wax ni xale yi say rakk lañ li ma def ci yow laa bëgg nga def ko ci ñoom bàyyi naa lag xale yi lijjantiwuma xooluma ñun am nañ ay mag mais suñuy mag lijjantiwuñu sax kër gi lu waaye wax da ne ah kër ga kat Omar ma fa moo ñu fa nekkal xale yi itam yàlla déggale ma ak ñoom ba lépp lu ñuy def su ma leen ne bismillah kenn du teg baat su ma leen ne jug leen ñu jug toog leen ñu toog ñoom baaba ñoom Muhammad maa leen yar ndax ñoo ñëpp ci sama loxo lañ nekk xale maa leen jàngal maa leen yar maa leen taxaw topp leen bañ toll nii métier mi yor di jàng ak jàngal ak di woy sax daayira bi ñu nekk ni maa daan woy taysiir boobu ñoom lenn rek lañ mën a aaw moo nekk ixfir li ummati yi bu taysiir jeexee ñu ñaan ñibbi ba tey jii nañ nekk ay jàngkat yooyu yëpp seen baay daf ma ko sasoon ne ma li la Euh, jàngal yar la def ko ci yow dama bëgg nga fay ma ko ci samay doom kon nag xale yi moo tax ñun itam boo ñëwee ci daara ji dangay yaakaar ni ñi fi nekk ñëpp benn bopp lañ koo ci gis rek boo duggee ci daara ja kaf ree def ni waaye bu ër farato jotee ku ne ngi sa farata bu jàng jotee ku ne ngi jàng bu leneen jotee itam ñëng ca fa tabarakallahu kon nag Souleymane noonu lañ àndee ba jonni yàlla tey jërëjëf Oustaz Oumar Diagne ci ni nga ñu leerale ànd gi nga ànd ak gone yi ba tey bokki sunu bokki internet yi ñu ngi ci ëttu Maodo TV ci seen émission bi la nga xam ne mooy corps avec maanaam dañuy fekk kilifa gu mu nekk fa nga ne seq yow waxtaan tey na ñu ngi fii ci Ainoumane. macha allah moom lañ fekk di troisième imam bi xam naa dañuy jox rek am Amdy mbay mu am kàddu yu gàtt yoo xam ne dinañu ko yëkkatil jéeme ko ci Oustaz Omar Dieng mi nga xam ne moom la ëtt Maodo fekk si fii tey ci Ainoumane Oustaz euh, wala yaa imam asalaamaaleykum yaa ngi en ci ëtt Maodo TV. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهم واهتدى بهدي إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yéen waa ëttu Maodo TV ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen ndokkeel ci weeru koor wi di leen dalal ci bërëb bi ci waxtu ngeen fi ñëw ak ñi ngeen fekk si seen place seen dëkk la seen jàkka la yow moom te yaa ñëwoon ca daara ja ndax bi ñu waajal programme bi kon da ngaa dellusiwaat ñuy kontaan ci loolu baax a baax di kontaan ci li amoon daaw di kontaan ci li amaat ren tabaarakallaahu ndax lii boole la sa bopp la. waaw tabaarakallaahu euh, mu mel ni oustaz Omar moom ngeen fi fekk si ci yitteem ci yëngatum ci góorgóorlum ci xam-xam. ci diine ji ci tariqa bi ci kër maam El Hadj lu ci nekk am na ci taxawaay bu matamat taxawaay bu rëy boo xam ne moom la ci taxawee bu fis bu ñëpp xam te lépp mu teg ko ci xam-xam bu wér tabaarakallaahu kon moom moo ñun ñoo bokk nekk ci jumaa ji daanaka mooy premier mooy deuxième imaam Xaasim Jami mooy troisième waaye mu am fi taxawaay bu rëy nag rawatina ci weeru koor yi weeru koor yi moo fi taxaw mooy bayaan ajjuma ju nekk mooy bayaan guddi gi suñuy naafila suñuy bala ñuy naafila mooy waxtaanu nit ñi lépp lu aju ci waxtaanu diine ci loxoom lañ ko teg moom lu aju ci waxtu juróom ci asim mi lañ ko teg man magam pël laa ci seen gannaaw rek bu ko defee moom nag moo fi tafsir tamit alquran ci tafsir boo xam ne néew na nga fekk ko ci yeneen barab yi tafsir bu wér a wér bu rafet a rafet bu tegu ci yoonu ko man ñu daan defee laa ñu koy sant ci loolu ko ci gërëm bu baax a baax ndax bu ko taxawee wutoon tamit ñun ño fay tok wala ñuuti keneen bu yalla dogalé nak mom mu man ko taxaw ta diko taxaw nañ ko bëggee dañ ko cee sant dañ ko cee gëreum tabarakallah di len nuyu baaxa baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah